naataal ñaar fukk ak ñett Jésus dalal na bépp xeet bépp askan ak bépp làkk suñu gëmee Jésus dañuy nekk di ay mbindeefu yàlla xeet bu ñu man di bokk mbaa askan ñun ñépp benn njaboot lañu muy njabootu yàlla ñépp ànd doon benn ci mbaaxu Jésus ñun ñépp dañu ànd ci yoon wu xat woowu di ñu jëmee ci dund